love. ci njiitu sang bu tedd bi ci Medina Baye Chérif Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass imam Cheikh Tidiane Seydi Alioune Cissé imam ratib bu Medina Baye Cheikh Ahmedou Ibnu Cheikh imam Hassan Cissé radiyallahu anhu Cheikh Mouhamed Mbaye Cheikh Bàcci Mbaye ñooy am mbégte di leen di yégal te di leen di woo ci xadaratu jumaa bu mag bi leen seen sëriñ seen soppe seen xarit Cheikh Ahmedou Ibnu Cheikh imam Hassan Cissé radiyallahu anhu fas yéene amal ñu jàpp ko vendredi 26 février 2021 ca Kosi Thiamène programme bi nii lay tëddee 16h30 ñu dalal gan ñi 17h ñu door programme ak ay zikarullah ki koy animé haji bay bité ci téwayu cheikh bay bité rajaawu tili 17h30 hadratu juma ci njital cheikh Ahmedou ibnu cheikh imam Hassan sisi radiyallahu anhu di ci wo wa Medina bay mahat ivriqiya al amérikiya mahat haji abdullah Niass ak mbollem wa Kosi Thiamène mbokki kon woote ba ngi doon baye ko ci cheikh mohammed bay ak cheikh Bàcci bay mudi hadratu juma bu mak bi len seen serigne seen soppe seen xarit cheikh Ahmedou ibnu cheikh imam Hassan Cissé radiyallahu anhu vendredi 26 février 2021 à tchèque Thiamène ñu ngi ci wo